أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا شريك له من يقول الحمد لله رب العالمين اللهم رب العزيز وجده وسعته وعلمه الحمد لله وسعته وجده الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فاتقوا الله يا عباد الله وعزموا أمره واحذروا سخطه أيها الإخوة جدير بنا دائما وأبدا أن نستدع بهذا الكتاب العزيز وأن نتعدب بآدابه وأن نتخلق بأخلاقه الآية الواحدة من هذا الكتاب العزيز فيها بركة فيها نفع فيها نفع في الدنيا ونفع في الآخرة فأذكر نفسي وإياكم بآية من آيات هذا الكتاب العزيز ألا وهي قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi ñoo ngi dénk sunu bopp ragal yàlla ak topp yàlla di leen ko dénk li yay ci ñun mbokk julit yi mooy fu nu toll ñu jéem a def alquran sunu kanam di ko leerlu ci sunuy mbir yépp mu nuy leeralal fu nuy teg sunu tànk fu nu mën a nekk waxtu wu nu mën a nekk guddeeg bëccëg ñu teg alquran sunu kanam ndax nu mën a niitu téere boobu di téere yàlla subhaanahu wa taala di qur'an war nan koo màggal fu nu toll waaye war a am teggin ak moom ak yar waaye mbokk jullit yi war nanu am jikko qur'an ndax alqur'an mooy téere bu màgg mooy téere bu am barke mooy téere buy jëriñe àdduna di jëriñe àllaaxira àllaaxira mbokk yi ci téere boobu di qur'an fa la nu tànn tey ab aaya di ko fàttali sunu bopp di leen ko fàttali aaya boobu mooy ban aaya mooy bi sunu borom subhaanahu wa taala di wax qul laa yastawi alxabiis wattayibu walaw acjabaka kasratu alxabiis fattaqu llaha ya uli alalbaab laallakum tuflihun sunu boroom ci téere boobu munu wàcceel muy sunu programme mu dund ca la nu wax mooy moom sunu boroom ngallawaay yëg leen de laa yastawi alxabiisu wa tayyib lu bon ak lu baax du yem mukk ci àdduna walaw ajabaka kasaratu alxabiis mu ne doonte ne lu bon li daf leen a yéem daf leen a waar dafa bëri seen kaw ba ngeen yaakaar ne lu bon li mooy lu baax yàlla mu ne du ñu tolloo laa yastawi du ñu tolloo mukk lu bon ak lu baax tey nag ci sunu dund lu bon dafa bari nekk ay waame nekk taw nekk ay waame di walangaan suñu kaw ba lenn ci ñun sax lu bon loolu léeg-léeg mu fëkk leen yóbbu leen ndax dañuy jàpp ne lu baax la waaye alquran dëgg-dëgg téere borom bi tabaraka wa taala la xoolal bim la waxee lu bon ak lu baax du tolloo mu ne doonte ne lu bon li def laa yéem xam nga yàlla lu mu la tëjale aaya bi fattaqullah yaa ulil albaab waaye yéen borom xel yi xoola yàlla borom xel yi lay waxal ci diggante lu bon ak lu baax lu bon bari ba ki bëggoon a gëm yàlla tiit léeg-léeg benn mbooloo romb la mbooloo mi ci niñ ko defaree seeni mbax naag seeni yëreg seeni tubayeg seeni dàll ak oto yaag rajo ya ñuy yuuxu yenn saa yi loolu bëgg laa fëkk yow jullit ba nga ne ah waaw est-ce que ñii moom du nu dëgg est-ce que lii du dëgg nga bëgg a dem foofu yàlla mu ne déedéet yaa ulil albaab e yéen borom xel yi yéen laay waxal dëgg du bëri mbooloo du mbooloo mi fu nekk bëri rek foofu la dëgg nekk déedéet dëgg du xaalis bi fi mu nekk dëgg du gu lekk gu bari gi fi mu nekk du naan gi du luxe bi du loolu tey nag ñun loolu moo nu jay ñu bari ci ñun jàpp ne lu bon li mu bari bari bari kon léegi dëgg la su ma leen doon jox misaal xoolal jigéen def yaramu neen ni mu xaraame ci lislaam ak ni mu bone ak ni mu ñaawe asma rakku aïcha la wala magam asma dugg na kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yére yu yaraax mu nuyoo yonent bi fay ko mu dugg Aïcha ngi toog Abu Bakrin Saddiq mooy baayam mooy baayu asma fa arada anha yonent bi dummóoyu asma dummóoyu la ko def ne ko asma jigéen su gisee baax yaramam dara waratu cee feeñ lu dul kanamam ak cënkam xoola yonent bi dafa dummóoyu asma te munoon na wax ne kii doomu Aboubacar la kii sama magu soxna la kon mur naa koo accueillir mu toog waaye yoon daf la bëgg a jàngal lu bon lu mu bari bari bari bari lu ko nit ñi yéem du tax mu baax te du tolloo mukk ak lu baax wallahi su ñëpp demoon bara yow dong nga nekk ci dëgg bu yeboo nga jàpp ci matt kook say dëggat wéetoo ndax ku ànd ak yàlla wéetoo borom bi ne fattaqullaha yaa ulil albaab laallakum tuflihun ngalawaay ragal leen yàlla moytu leen bu leen jaxase diggante lu bon ak lu baax ndax yàlla def ngeen texe sooy joxe misaal tey lu bon lu mu bari xoolal joxante loxo góor ak jigéen ku ko dul def te yow yow yaa xat yow la nit ñi mënta dékku yow da ngaa bari problème nuyoo lu ci nekk ah ñëpp a ngi koy def sëriñ diw sàmba diw diw ñëpp a ngi koy def lu ci nekk allahu akbar lu yàlla ne dafa xaraam yonent bi ne dafa xaraam su ko àddina bi yëpp doon def lu tax mu dagan lu tax mu baax kon lu bari ci sunu dund aaya yi ñoo yi ci war a génne waaye tey alquran boobu nga xam ne moo nu waroon génne ci lëndëm gi alquran boobu ci boppam moom la nit ñi gëmatul ixwatal iman la yastawi alxabisu wa tayyib lu bon ak lu baax du tolloo mukk aaya boo xam ne tënk na mbooleem dund gi laa yastawi alxabiis wa tayib fi kulli l abwaab lu bon ak lu baax du tolloo mukk ci mbooleem bunt yi bunt boo mën a nekk bunt boo mën a ànd mbooloo moo mën a dem su fekkee lu bon a fa nekk mbooloo moomu amul importance amul njëriñ ak ku mën a jiite mbooloo moomu ak sa xel ku mu xalaat ci kooku rek su fekkee ci lu bon la nekk lu alquran ne dafa bon loolu baaxul ak luñ ko rafetlu rafetlu xoolal tey suñu xel rek la ñuy demee ci ay mbir yoo xam ne dafa bon waaye suñu xel ak ñépp di ko def rek ñu ne baax na fala yastawi alxabis almuctaqad maa tayibi almuctaqad pas-pas bu bon bu ñu gëm ak pas-pas bu wér bu ñu gëm wallahi ñoom ñaar yemuñu su àddina bi yëpp àndoon nekk ci pas-pas bu bon gëm ko yow nga nekk ci pas-pas bu baax yow yaa nekk ci dëgg jàpp ci bu la mbooloo mee nax li ñu gëm baaxul te tey loolooy li ñu am mooy li ñu dal li ñu gëm pas-pas bi moo baaxul laa yastawi alxabis an nawaaya maa tayibi nawaaya yéene yu bon yu bari du tax mu yem ak yéene bu baax laa yastawi xabiisu l amal maa tayibi l amal jëf ju bon lu mu bari bari bari moo jëf ju baax lu mu tuuti tuuti tuuti yemuñu ndax jëf ju baax jooju dafa sax ci suuf ay reenam jàpp mu jóg màkk nekk garab jëm kaw asamaan jëm ci borom bi tabaraka wa taala amma jëf ju bon dafa mel ne taw bu wala ngaan tegu ci suuf di dem yàgg yàgg yàgg ngelaw li dina ko fi jële wala ndox mi wan ko mu seey wala nit ñi fexeel ko mu jóge fi parce que baaxul ayuha al ahbab inna allaha azza wa jalla tayyib la yaqbalu illa tayyiban yàlla dafa set yàlla dafa teey du nangu lu dul lu set yonent yàlla Muusa alayhi salaam gis na waajoo xam ne mi ngi tàllal yàlla ay loxoom di ñaan ba ñu seen poqotaan yi Muusa xool waa ji jàkkaarloog borom bi ne ko waaw kii doo ko may yàlla ne ko déedéet lu tax mu ne ko li mu sol dafa haraam fi mu toog dafa haraam li muy lekk dafa haraam ku mel noonu duma ko nangul kon lu bon lu mu bari bari bari bu mu ñu yéem nanu xam ne islaam mooy dëgg pas-pasu tawxiid mooy dëgg sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dëgg leneen lu dul loolu réer la ak mbooloo moomu lu mu bari bari bari wala jëf jooju luñ ko yéem yéem yéem yéem mbokk yi ci yàlla fala yastawi al mushrik maa al mu'min kuy bokkaale yàlla tabaraka wa taala ak ku dul bokkaale du nu yem mukk keroog ba Ibrahima taxawee ci kanamu bokkaale kat yi ñu koy menacé naan ko boo nu moytuwul sunu yàlla yi deleen dina la alak Ibrahima kenn la woon waaye xoolal gaa yi li ñuy bari bari bari bari bari tiitaluñu Ibrahim jaaxaluñu ko lan la leen wax allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa ulaika humul muhtadun lan la Ibrahima wax gaa yi tabaraka wa taala sunu borom ne ki gëm yàlla bokkaalewul waaw moom nu muy tiitee ak ki nga xam ne dafa nekk bokkaalekat yàlla ne ki gëm yàlla bokkaalewul kooku moo nekk ci sécurité kooku moo nekk ci jàmm Ibrahima kenn la woon loolu moo lay wane lu bon ak lu baax du benn mbooloo firawna ak mbooloo Muusa Muusa kenn la woon waaye moo nekkoon ci dëgg mbooloo yonent yàlla Muhammad ca gaaru Hira moo ak Abu Bakr ak mbooloo waa Quraysh kenn la woon ñaar lañ woon waaye lu bon li amul importance mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala wala man iddaa an almasih huwa allah la yastawi ma zalika abadan man yaqulu la ilaha illa allah ki gëm ne isaa yàlla la wala isaa doomu yàlla la wala yàlla ñett la moo ki gëm yàlla kenn la ñoom ñaar yemuñ lu ñee di bëri bëri bëri bëri bëri kii gëm ne yàlla kenn la moom moo nekk ci dëgg borom bi tabaraka wa taala mu ne am najaalu alladina amanu wa amilu salihati kalmufsidina fi l ard am najaalu almuttaqina kalfujjar أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وهكذا أيها العباد تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى نون رجل يكونتني آي borom bi ne da ngeen a bëgg ma jël ki gëm yàlla di ko tollaleeg bokkaalekat di ko tollaleeg mushrik kuy jaamu xërëm kuy jaamu bàmmeel kuy takk galaaj ay téere ki ay béjjana ki xaaw ku gëm ay bu xaaba kuy seetlu koo xam ne bu xëyee balaa muy def dara foog mu gisaane da ngeen ko bëgg ma tollale ko koo xam ne fu mu nekk mu ngi naan yaa rab yaa rab yaa rab yàlla mu ne ñoom ñaari yemuñ borom bi ne am najaalul muttaqina kal fujjaar da ngeen a bëgg ma jël ñi ma ragal tollale leen ak kàccoor yi abadan wallahi ñoom ñaar yemuñu borom bi ne afa man kaana muminan kaman kaana fasiqan laa yastawun borom bi ne ndax da ngeen a bëgg a jël ma jël ku gëm yàlla mumin ma tollale ko benn saay-saay boo xam ne kàccoor la lu bon lu ne mu ngi ci dugg yàlla mu ne da ngeen a bëgg ma jël ñaar ñuy tollale leen borom bi ne da ngeen a bëgg ma jël jullit afa najaalul muslimin kal mujrimin da ngeen a bëgg ma jël jullit tollale koog ab yéefér maa lakum kayfa tahkumun jugement bu mel nii naka ngeen ko mën a attee lu bon ak lu baax du tolloo mukk ak lu mu ñu yéem yéem lu bon loolu aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فلا يستوي ابدا المؤمن الذي يسير على بصيره من الله مع الكافر المخبت لا يستوي هذا مع ذاك ابدا mbokk jullit yi du yem mukk ku gëm yàlla tabaraka wa taala ab ak yéeféer bu gëmul yàlla kuy jaamu yàlla tabaraka wa taala du yem mukk ak koo xam ne du jaamu yàlla waa ji julli du yem mukk ak ki nga xam ne du julli mukk du ñu yem wallahi saa yoo gisee kuy topp yàlla ak ku toppul yàlla même seen jëmm même seen yaram ñoom ñaar duñu nuroo sahaaba muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo leen doon tagg ci quran yàlla mu ne muhammad rasulullah wallazina amanu maahu gaa yi àndoon ak muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla bi mu leen di tagg ci aaya bi lan la wax simaahum fi wujuhihim min asari sujud soo leen gisee rek nga xàmmee leen seen xar kanam ya nga xam ne ñii ay jullit lañ duñu ay bokkaalekat waaye xoolal tey ba ci kàccoor yi àddina yi ñoo jullit yi niroowuñ yal na yàlla yërëm sunu sëriñ ba da daan wax même ñi joué film yi ci àdduna di joué film islam yi ñii ne ñoom ñooy yéeféer yi ñii ne ñooy jullit yi daf ma doon wax oustaz mania mu ne ma xoolal ñaari kanam yi sax duñ benn même ñi tuddawoo jullit ñi sax da ngay xam ne ñoom ñoo gën a leer ñi nga xam ne ay yéeféer lañ même ci film yi mbokk jullit yi lu baax ak lu bon du yem même bu fekkente ne lu bon li dafa nekk ay vague géej tey nag lu bon lañu favoriser teg lu bon ci kaw jigéen ñuy sol lu bon def bopp neen ay góor yi def yaramu neen njaaloo sàngara musique fecc lamb foo toll yaa ngi gis benn programme ci programme lu bon ñun ñu jéem a jaar ci yoon wu baax dañuy dem ba ci yàgg ñu yaakaar ne waaw ñun est-ce que li nu nekk sax dëgg la ndax lu bon li nu mu baree ñu commencé di deltu ginnaaw di naagu ku ci doon soññ sa waa kër ci julli sax léegi da ngay découragé ah ñëpp a yem dañ bàyyi noonu rek ku ci daan soññ waa këram ñu muur seeni awra sax da ngay découragé ah nañ bàyyi noonu rek ku ci daan soññ sa waa kër ñu jàng alquran sax léegi da nga naan ñëpp a yem bàyyi noonu rek est-ce que sax mbir mi dinañ ci bindale bàkkaar léeg-léeg nga daje kenn ne ko lii lu bon la mu ne ah kon de du man rek maay dem safara kon xanaa ñëpp la ndax ñëpp a koy def léeg-léeg nga dajeeg nit ne ko deltul ci ginnaaw ci lu bon li nga ne mu ne la mais lii ñëpp a koy def du man kenn bu dee lii ku ko def ku ko def dem safara kon ñun ñëpp ay dem mbir mi du problème mu ñëpp problème mu man la alaykumu anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum loolu la yàlla waxoon du problème mu ñëpp problème mu man la yow sa bopp fexeel nga jub fexeel nga jéem a dugg aljanna waaye bu fekkee ñëpp dugg nañ ma dugg loolu du waxu ku am xel loolu tax aaya bi bi ko borom bi tabaraka wa taala di tëj lan la wax fattaqullah ya ulil albaab laallakum tuflihun ngan la waay yéen borom xel yi kaay leen xalaat ci lii ci lan diggante lu bon ak lu baax du tolloo mukk ñëw leen ngeen xalaat ci musidal fulɓe taggal yettude allah e julde ne laaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa taala o makani en o haali e qur'anu karim o wi la yastawi alkhabisu waltayib walaw ajabaka kasaratu alkhabis fattaqullaha ya ulil albabi laallakum tuflihun allahu subhanahu wa taala e deftere makko nde ɗo wiyetende qur'an nde deftere teddunde ko heen o eeri juulɓe o noddi ɓe o wiiɓe ngaremi haalana on ko moƴƴi e ko boni fotata hay so tawi ko boni ko heewi haa haawi on hoto ɗum funtu on hoto ɗum nawar on ngande onon kon juulɓe ko allah waɗani on e aduna oɗon rewa ko woni ko moƴƴi on ala droit on ala laawol selde laawol allahu tabaraka wa taala hay so tawi ko boni ko heewi heewi ha taarimama bangeji fof yeeso e caggal ñaamo e nano hoto ɗum nawe andu ko goonga woni goonga goonga o woni goonga allahu tabaraka wa taala alhaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin allahu subhanahu wa taala o wi afaman kana muminan kaman kana fasiqa la yastawun allah wi mbiɗa haalnoma hunde an juulɗo an gonɗinɗo allah tabaraka wa taala andu juulɗo e mo wona juulɗo ɓe fotata e yeeso allah so tawi kamɓe ɗiɗo ɓe fotata allah suɓato ko gooto te mo suɓato o woni juulɗo an holko poɗɗa wonde e to gona juulɗo allahu subhanahu wa taala o wi afanajaalu lmuslimina kalmujrimin holko yiɗɗon kono yiɗɗo mi fonda on rewnoɗo e am on dañnoɗo tawhid on juulannoɗo on horannoɗo mi fonda mo e mo moyɗa wadde ɗum ɗum jiɗɗon aɗa andi allah ko udira aya o o wi ma lakum kayfa tahkumun so tawi onon kon ñaawoɓe so tawi onon kon qaadijo oɗon ñaawa on ñaawi ko wayni ande ñaawgol mon ngol rewani laawol holko woni rewgol laawol woni juulɗo emo wona juulɗo ɓe potata e yeeso allah tabaraka wa taala janngo ɗo e aduna juulɗo o omo waawi wonde baasɗo omo waawi wonde ñawɗo omo waawi wonde mo janngaani kono o waawa fodde emo gonɗinaani allah tabaraka wa taala o janngo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
بسم الله